Wasifa TV nañ dox ak yow waaw deuxième combat de la soirée diganté mbalkama ak bu Tassette ak 500 fondé 500 fondé ngén gis noonu euh, journée Mbousnakh production day 20 20 janvier 2022 ah, voilà arbitre mu Agnom. wax ak arbitre mu ngi wax ak arbitre mu ngi wax ak ñoom di leen wax li lamba bañ ak lamba nangu laaj ndax par nañ arbitre sifflé na eh, ñu ngay eh, euh, Salam TV ak jobas Info TV Garga Maak jàppante nañu jàppante nañu jàppante nañu jàppante nañu ñoom ñaar jàppante nañu ah ah waaw waaw waaw deuxième combat de la soirée diggante Mbalka Maak ak 500 Fondé gis fi euh, ambulance bu Thiès gis nañ fi Laye Gothé gis nañ fi George Bush euh, moom itam mu ngi fi attention ngi jàppante ba léegi. ngi jàppante ba legi léegi tembal ke mak ak 500 Fondé 500 Fondé de yaakaar naa ne attention ñoom ñaar dafa mel ni ñamante

tey lamb ji ala daw mel na tey. attention attention génn nañ saako ya génn nañ saako yi ba du mu mel ni tey tey bés xam nga ñaari xale yi li ma li ko mën a waxee rek dañoo ñamante ñoom ñaara salaam ndax ñaari xale yi dañ ko waxante woon ca signature ba ki nga xamante ne mooy 500 francs fondé mu ngi war a Thiès waaye ki nga xamante ne mooy euh, ki mu ngi war a fale ka nga xam ne côté mooy euh, côté Diobass ñu nga lewetoo ñoom ñaar ku nekk jiital euh, kii jiital pied gauche kii jiital pied droite Euh, Mbalkamak moo jiital pied gauche ki nga xam ne mooy César Frappondé moo jiital pied droite bi door na ko benn droite mais dalul ñu ngi alewetoo ñoom ñaar di leen fàttali ñu ngi fii en direct stade municipal bu Ngoundiane euh, ci kanam rek nee naa leen dinañ fi am yaa xati bu Ngoundiane xale bu espoir boobu ak ki nga xamante ne mooy Nene Diarra bu Thiès salaam. waaw Badou ni tey moom euh, combat yi war a neex la. waaw ndax gis nañ commencement ba vraiment ki nga xam ne mooy Hercule ak ki nga xam ne mooy ñu boré combat bu neex na neex waaye ñaareelu combat bi ñu ngi noonu jappanté nañu Malka daw na sol ko jàppante nañu waw jàppante nañu waw waw batuna batuna ñom ñaar ajna lo ba jappé du ngam la rek dafa mel ni ñaari xalé yi ah ñaari ndaanaan lañu waaye ci kanam tuuti rek dañ xam wañati fu mu mujjee gëtam jëf badu lo phénomène amna solo jàppante nañ ñom ñaar Andrek Sir Salam TV ak eh, Jobas Info TV di nuyu waa Ngoundiane ñep tambalé suñu nuyo le magistrat de la ville monsieur le maire Mbaye Dione di nuyu kilifa dina yi ak kilifa ada yi ñaari mbeur ya nga jabanté ñaari mbër yaa nga jàppante ñu ngi dem ba jaag di nuyu rek waa mbokku jaag ñëpp di nuyu Ngom Abdou di nuyu Xaadim Faye Xaadim Ngom photographe fate wuñ la Insa Fondé ak Mbalka Maak ñu ngi jàppante boobu ba léegi ah ko 500 Fodé foq na ko waaye ki nga xamante ne mooy Mbalka Mar rasu ñamante nañu bu baax arbitre até leen ñëw salaam salam. Wow, tey combat bi tey salaam waaw xam nga booy yi dañoo dañoo bëri doole dañoo waajal bés bi kenn ku ne ci ñoom euh, bi ngay jël avance da nga am li nga wax na sa adversaire tey nag kenn ku nekk li nga bëgg rek mooy am ndam kon manul yomb manul yomb manul yomb salaam ndax xale yi ñamante nañu ki nga xamante ne euh, attention mu ngi koy door ki nga ne euh, mel dafa concentré wu ci combat bi. waaw ah rëpp nañ rëpp nañ war na ko ndombo war na ko ndombo war na ko ndombo waaw Bartama attention Bartama daan na ko daan na ko waaw waaw Bartama voilà Bartama daan na ko maak daan na waaw moo daan ki nga ne mooy César Fondé voilà voilà nga xam ne moo jóge Thiès waaw daan na léegi waaw kon ah, ñaari combat ji na ci soirée bi ndeysaan ñu xaar kanam tuuti ñu ñëwaat ak yéen incha allah di ma teg lu metti barki sëñ Bamba lii betu sant waa Ngent waa Mbuus Naaf. balaa ngay sant balaa ngay sant ah. combat bi dafa yàgg lool. non combat bi ñun lépp lañu waaj lépp lañu waaj. ma ne waaj nañ physiquement waaj nañ lépp bilaay. waaw léegi euh, kañ nga jël avance xam nga sa mbër ki nga bu mbër. kii mbër kees la. Uh-huh. waaw 500 fond de am naa ko nii rek. waaw lan moo tax nga doon négocier combat bi. négocier non liñ ñu conseillé rek la ñuy def. ñu ay ndaw laaj xale yu ndaw. dañoo gëm naa am man am naa 4. Uh-huh. waaw. ñaata victoire. 3. ah ak benn défaite. waaw jëm. man. ci Paul Bali. nooy neex

não, Ndiogu acabar.